il n'aura plus l'opportunité de me voir aller lui rendre visite au palais. S'il a besoin de moi, c'est lui qui fera le déplacement au point. Et la solution qui a été trouvée était de dire, ok, on aménage chez la maman de Mme Faisal, à qui on demeurant, je rends un vibrant hommage. Moi, je la connaissais pas très bien, puisque du temps du SOPI et du PDS, c'est Maki, Ousmane Masek et Amil Natal qui étaient mon, euh, disons, ma garde rapprochée avec les FADA et, et quelques jeunes. Et Alun Sow, le, le, ministre Alun Sow. Et c'est eux qui venaient plus fréquemment chez moi, ils, ils connaissaient Ndaï Penda. Moi, j'avais très peu d'occasion de me rendre chez eux, donc je ne connaissais pas leurs épouses très bien. Mais je l'ai découverte cette femme-là, dans son engagement, dans son intelligence sociale, dans son humilité d'exception. Mais je lui ai dit, à la limite, si c'était toi la candidate, j'aurais eu du mal à te refuser un centième mandat. Tellement elle est engagée au service de ces causes avec humilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça a échappé à beaucoup. Quand elle est venue sur la tribune officielle au défilé, devenu Premier ministre, Diall, nuyu président Assemblée nationale, ministre de la Défense, Diall, nous, président Assemblée nationale, ex-Batiman, devenu Soukelmo, à la tribune officielle. Pourquoi elle a fait ça Elle était en train de m'envoyer subliminalement le message qu'au-delà des apparences républicaines, au-delà du protocole républicain, il y a quelque chose de plus fondamental qui nous lie, c'est notre culture, et c'est pour ça qu'elle est venue devant moi elle a fait ça. Et, vous savez, vous savez, le l'élément culturel est très important. Vous m'entendez souvent xam naa loolu sax du puisque bu ma ko waxee euh, Kouthia il va me fatiguer. Vous savez que je suis très très très amoureux de ma femme. ndey eh, eh, vous savez non non c'est pas seulement c'est pas seulement le fait d'une beauté physique rare vous en êtes d'accord nous venons de fêter nos nos 35 ans de mariage et et Vous savez que moi, je suis, depuis que je suis enfant, depuis que je suis enfant, j'ai un comportement royal. Je, je, je, ne sais que ce que je veux. Et la, la première fois, quand je suis allé lui faire la cour, elle a refusé. Je ne comprenais pas. Pourquoi tu refuses Mais elle me dit, mais non, vous malade. Je dis, mais comment ça C'est pas possible. Et je vais voir euh, ma mère et je lui dis, cette fille-là, je l'ai draguée, elle a refusé. sama yaay ne ma kon de ko ndax yow koo doxaan bu bañee rek yaruñu je retourne la voir, je lui voilà ce que ma mère a dit. Mu ne ma moom alors mais elle a fini par accepter. Donc ma mère avait raison. Et ça, ça s'adresse à toutes les filles. ku ma doxaan nga bañ seetaatal sa yar. mais non non non j'avais dit ça. J'avais dit ça à Porohan. J'avais dit que le jour où je serai assez courageux pour avoir une ñaareel, ce serait euh, une Mame Diarra. Euh, puisque d'abord, elles connaissent le Coran de façon exceptionnelle. Et, ça, ça, suffit comme garantie de qualité éducationnelle et comme je vais vous raconter histoire que Serigne euh, Serigne Moussa m'avait racontée, je pense que c'était à Naawel. Il me Soxna Maam Jaara bi ñu bi muy war dem kër Maam Mor mbusoo ba gépp nijaayam yi ñu sant mbusoo dañu ko taaj di ko yeb di ko wax fii nga jëm daara la nii lañu fay sàkkoo ji barke te yàlla dafa dogal maam Mor Anta Sali am alal ba nuppi am tuuti naqari deret disons ni ko olof yi di waxe bu dee sañ nañ ko wax donc bi ko nijaay yi ak mag yi yebee ba pat elle était jeune hein euh, une jeune femme du Baol bi ñu ko yebee ba pare di ko wax euh, bon je change les noms puisque il il me les avait donné soxna mbeen mi wala soxna gura mi ni ñu yore seen kër seen sëy rafet na nangam na bi ñu paree mu ne leen li ma leen bëgg a tontu daal mooy soxna Mariama ndeyu yonent yàlla Isa ak soxna aminatu ndeyu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ma maase ak ñoom jamono danaa nangoo bokk ak ñoom borom kër def sama jom ci ñu bañ maa doom mais est vous réalisez ça une jeune femme du Baol à peine je sais pas qui n'est jamais sorti de là, qui transcende son espace géographique immédiat, qui transcende ses frontières temporelles et qui va se comparer à celles qui ont porté les meilleures créatures de l'univers. Donc, l'ambition, c'est ça. Et vous savez pourquoi elle a pu faire ça Puisqu'elle connaissait le verset où Dieu dit Khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum Elle a compris quelle était sa mission sur terre. C'est ça l'ambition. elle n'a pas eu de complexe euh, vis-à-vis de Marie, vis-à-vis de Sorna Aminatou. Elle a dit que le comportement qu'elle aurait eu si elle était leur coépouse n'avait comme destination finale que de produire l'équivalent de Khadim Rasoul. bu sëriñ tuuba bindee ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahu bi xidmatin mu ne mu ne tuuba texe bienheureux plaisir éternel puisque le paradis c'est pas un lieu où l'on se rend c'est un état d'esprit C'est un état de conscience où on est heureux en soi, indépendamment des éléments extérieurs. Donc, il dit, cette, joie-là, kan moo ko mérité ñu ne le murid c'est l'aspirant à son Seigneur infatigable ki xëccu rek jëm ci boroomam de façon infatigable, c'est celui la le mouride. Et c'est à lui qu'est le bonheur et le plaisir. bañ ci boole kenn bañ ci boole lenn xëccu jëm ci sa borom bañ koo boole kenn bañ koo boole lenn en tout cas man sëñ Muntaxa loolu la may wax daf ne ma dama gëstu njub ba sama borom defal ma ci tawféex ma gëstu lislaam ba sama borom ma ci tawféex ma gëstu sëñ Tuuba ba sama borom defal ma ci tawféex noonu mu ma ko defale noonu laa la ko bëggale noonu mu ma ko defale noonu laa la ko bëggalee te nanga nga jàpp ni sa boroom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp bàyyi kook sa bopp noppul sa boroom moo la gën a xam sa bopp loo xam-xam sa bopp yàlla gën laa xam sa bopp loo bëgg-bëgg sa bopp yàlla gën laa bëgg sa bopp waaw kii la gën a xam gën laa bëgg doo ko bàyyeeg sa bopp nopp donc man na ngeen jàpp ne dara tënkuma kenn tënkuma kenn jénguma te loola am na te jàngaguma xat fakka kabla xat bassa fadla fa dur walla wa nafaru kenn amul capacité tënk ma kenn amul capacité jëng ma Cheikh Sidi Mokhtar ba ma ko fekkee nganda ànd ak Moustayin ak sëñ Moustapha doomi sëñ euh, sëñ Moussa Nawel mu ni ma bu dee àddina ngay wut sëñ Touba am na ko mën na la ko defal bu dee alaaxira ngay wut sëñ Touba am na ko mën na la ko defal yow nag yaay tànn ma ni ko baxda aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim tànn naa rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaban naar fii la yem nangul naa la boole la ci njabootu Serigne Touba ñu bari yëkkati ci ay kàddu ah ku jël wér du tijaan boo ko bàyyee nangam nangam d'accord mais man musuma jël wér du tijaan donc mucc naa ci loolu sëriñ Cheikh moo ma yar musuma jox wér junior fonde bi mu doon dogee kër soxna maam Ana Kamara sama yaay moo ko doon aral musuma jox wér Pape Malick Sy musuma jox wér ñooñu laa xam ñooñu ñooy samay nijaay ñi ci des xamuma leen xëy na Serigne Maodo Sy moo ci dolleeku mais moi en dehors de cette famille de Serigne Babacar je connaissais pas les autres je n'allais part mais Serigne Cheikh c'était mon maître c'était mon ami c'était mon oncle c'était pas mon marabout donc Sénégal nañu maandu sëriñ Moussa mi ñu ci tuumaal question bi mu ma njëkk a bi mu nee ma dama bëgg nga gindiku ci sa maam Serigne Touba daf na ma tiijaan yi ku ciy sa kilifa ma ne ko Serigne Cheikh moo ci sama nijaay puisque sama yaay moo ma nett li ne bi mu ma ëmbee Serigne Cheikh daf ko doon visiteloo ay këram àjjana di ko expliquer fleur yi bu ci ne fan la odeur bi bàyyi ko mu ne kon man mi mu ëmb te xamagul puisque boobu amul échographie amul dara xamagul